asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine nuyooti naa leen sama gaay yi ay ñu dem dernière ligne bi comme ni ma ko waxee woon dibi ginaar dibi ginaar temps la dégg naa ginaar dafa manqué <laughs> teel a jënd rek sama gaay yi ba yëg ngeen ni Red Herbes épices mi ngi Auchan waaw loolu jar na ree <laughs> waaw yow tam loolu jar na reetaan bu ngeen doxantoo ndànk dem ba Auchan di jënd ginaar yeeg ñoom pombiteer rek ñoom soble da ngeen fay fekk ren Herbes Épices Reen Herbes Épices mi ngi Auchan ma répété ko waaw koy hypermarché exclusif ak euh, point de vente yi nga xamante ni moom la ñu bind yëpp waaw koy lii dafa neex waaw dafa neex nga def sa sa sa sa marque nit ñi di ko xëccoo ku ne bëgg koo bëgg koo séddale ku ne bëgg koo jaay waaye kay communication bu doy rek ndax booy jaay lu sell di jaay lu baax ñëpp dañ ciy bëgg jot waaw kay ci euh, partenaire bu bees bi nga xamante ne moom ngeen am yal na leen ay ayca dibi ginaar ñu dem def sunu épices nokkos def épices lakk ginaar bu la neexee dóor ci piquante piquante bi dafa moo tax defuma ko ci euh, sinon buy lekk danaan ma maman ça maa ngi teg ne la samay euh, pomme parce que damay def frite def sauce teg herbe aromatique bi nga xamante ne moom laay ñëw euh, dëbb nokkos def ci tuuti poivron def laaj def soble def benn nokkos bu soft bu saf boo xamante ne ça se marie très bien ak dibi ginaar dibi bi nag à la poêle laa koy à la poêle laa koy def du ma ko def ci four du ko def ci grillade waaw da am sa effet dibi euh, soxlawul ñuy jël ay xal di ko ci def euh, di def fumage beeg yëpp yëpp ndax neex na saf na te saf na dibi voilà version Alphie Cuisine lay doon léegi nag ñu jël sunu pool euh, def dëwlin kase ak xorom ak épices yi tiital sunu ginaar ba mu doore ñu daal di defar nag sunu li nga xamante ni mooy marinade pour mu mën a ñëw imbibé bu baax li nga xamante ni dugg bu baax li nga xamante ni mooy ginaar gi ok parce que goût bi nga xamante ne moom la ñu soxloo ci ginaar gi buñ ko mariner saaf ko dafay xaw nduru ak euh, rôti ginaar bu ñu bëggee dibi bi nag dañ koy njëkk def précuire euh, ba pare après ñu ñëw gis nga nokkos bi laay dëbb nii bu ñu jëlaatee nokkos bi euh, def ci ginaar yi da ngay am cuisson double cuisson boo xamante ne sa ginaar dafay ñor du lakk ñu dolliwaat suñu épice même épice yi ma utiliser woon maa ngi ñëw dagg samay soble def naa moutarde dolliwaat tuuti xorom parce que li may defaat euh, ci marinade bi ginaar bi la ak soble bi voilà ma dem récupérer ginaar bi nga xamante ni moom laa doon tiital gis nga couleur bi dafay doore mais ba léegi ñoragul parce que des na voilà ma jël yëpp nag transversé ko ci li nga xamante ne mooy marinade bi ma doon def léegi voilà parce que bu ñu nee effet dibi xam nga ni dibiteri yi dinañ ko laxas ci kayit mais tamit boo ko laxasul ci kayit ba lee ba noppi dangay am beneen saveur boo xamante ne bokkul ak euh, ginaar bu ñuy sunu bu ñu saafee ginaar def ci soos. voilà bu ko defee moment bi ñu daal di marine euh, jàmb yëpp bu leen fàttee euh, Reen Herbes et Épices mi ngi disponible Auchan yéen am ngeen yeneen point de vente mën ngeen profité encore ci pack Ramadan bi fii ba suba ak ginnaaw suba avant fête parce que ay prix promotionnel la yoo xamante ne bu fête bi jàllee rek dafa yéegaat. léegi nag ñu seppiwaat ginaar gi tegaat ko ci poêle bi voilà foofu boobu mooy deuxième cuisson bi bay ko fa mu ñor euh, compoté voilà andi couleur andi goût euh, te du te du laal euh, këriñ voilà dañ ko teg nii tegle ko nank voilà gis nga dañuy tourner di ko tourner tourner waat fële beneen poêle bi teg naa ci soble parce que sama poêle yi dafa ndaw te bëgguma mu rawante comme recette rapide la ñuy def te ay idée recette la ñuy joxe brochette yi ñi ngi fi michu yi yaa ngi fi euh, li nga xamante ne mooy suuri daño yi couscous vermicelle yéen ñëpp yooyu yëpp a ngi koy am ci Alphie Cuisine da ngeen remonter rek bu ngeen tàppee vidéo yi Alphie Cuisine euh, laaj ko recette bi ngeen soxla bind Alphie Cuisine mu génneel leen ko léegi nag ñu daal di jël yëpp dressé ko tàndal neex jël li la doy pour mën a euh, def sa dégustation defar naa ay frites defar naa tuuti salade crudité parce que ku ne ni salade et puis rek ñu jaal ci dégustation bi di leen souhaiter une très bonne fête euh, di leen ndéwénal et di leen baalu ak sunu borom yàlla ñu may ñu fekkee euh, weeru kooru déwén mu teewee ko ñu teewee ko ci jàmm ak salaam mu ànd ak wér euh, képp ku seetaan képp ku partager képp ku abonné jaajëfal naa leen di leen wax ni kontaan naa ci yéen ndax abonnement yi yokku na très bonne fête Eid Mubarak Ramadan Mubarak yàlla ñu borom bi may ñu teewee ko déwén merci beaucoup Reen Herbes et ci Alphie Cuisine